man de li may bañal Macky Sall mooy maanaam mu génn ci réew mi génn bu ñaaw mooy ah man de aw du sëriñ duma gisaane kat mais damay wax sam papa ma ne ko barka démb dama gént gént gu doy waar gént gi ma gént gént naa nit ñu bari dee ay nit feebar ñu di leen puus mu mel ni genre balaa bu dugg ci réew te yàlla de dimbal na ma du ma wàlliwu du ma gisaane kat mais lu ma gént lu si ëpp dama koy gis te gént googu tiital na ma lool maanaam ay nit ñu bëri ñi ngi dee mais gisaat naa ci beneen wet gi mel ni feebar bu dugg si réew mi genre peste ak yooyu ñu naan genre épidémie gis naa ko si sama gént loolu depuis ma gént ko boo xoolee boobu léegi maa ngi wax ci média yi ndax tiitaange gu ma am gis nga dëkk bu bu bëree injustice accident yi injustice la sëñ bi ñu ne ci armeel yi ñëpp rëccu ñu ne ci armeel yi koo demoon fëgg ko ci bàmmeelam rek am na lu ko am na ñoo xam ne ñi ngi banku ñu tàlli ndax bu ñu ñëwaatoon ci àdduna dinañ lijjanti lu bëri fas yi mala yi nga xam ne dañ leen jàpp ci réew mi di leen dóor duñ leen yóbbu ci vétérinaire duñ leen faj accident yi giñ nit loo xam ne defu ko bëgg yàq àddunaam ndax mbiru adduna mbiru politique ci waxu xale bu jigéen boo xam ne àdduna wër ngëp am na universitaire yoo xam ne ñu commencé nañ benn univers benn professeur bu nekk université Harvard hmm. xool c'est un américain mi ngi commencé di bind livre viol inédit la ko tuddee viol inédit noonu la ko tuddee loolu la ma wax. te cas prétexte bi moom mooy. bii bii bii nee na waaw léegi après jurisprudence day ñëw foofu par nee na musul gis façon façon dossier viol bu ñu traité nii boo xam ne ay éléments de preuve dafa am yuy yuy setal nit ki ñu yóbbu nit ki jugement te moom nee na jàngale na vingt six ans ma gis ay producteurs film ñii di jouer théâtre hmm. peut-être contexte bi baaxul mais ñu ngi ciy tourner ay film nga gis yeneen dëkk yi nga xam ne jege nañ leen. ñi ngi am lu xam ne ñi ngi koy waaj des par mbir mi dafa mel ni scénario maanaam boo ko xoolee dafa mel ni film rek bu ñu bu ñu bu ñu bu xëy na actrice bi di Adji Sarr moo ayul moo tax film bi jaar film jaar ndax ñàkk ay moo tax Adji Sarr génn si télé bi di fecc par Sénégal dafa am comportement booy am bu yërëm Adji Sarr début bu victimiser woon boppam di muuru yore kurus di joy victimiser boppam xam nga Sénégal da ngay yërëmtalu bañ yërëm Adji bi dina am lu bëri Sénégal yi maanaam même bu dul dëgg dinañ dinañ ko yërëm ah mais ay sar tey yaayam fa mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm te yërëm ay mbokkam xaw nu ñuy siggee si réew mi aji sar ëllëgëm même bu procès bi jeexee ëllëgëm ci biir réew mi ak bitim réew aji sar message solennel bi moom moo ko moom hmm. xale bu ndaw ba aji sar àdduna jarul lii ay sar góor ñu bari seen àdduna yàq na ci viol te ma xam ne ñu ngi ci kaso aji sar xaalis wér moo ko gën gëm yàlla moo ko gën gën yonente bi moo ko gën am jàmm moo ko gën aji saar ñëwal à de meilleurs ñi la jege ñi la téye ñi la lax wax ñu la dëkk aji saar koo gis am na ay mbokk baayam dégg naa mi ngi dund naka baayam dem jël doomam ay mbokkam dem récupérer ko ci loxo yu nekk par aji saar day jeeg saay amee ay dépression fañ ko jël hmm. day jeeg saay amee ay dépression mel ni ku dof mu jeeg saayaat normal man li ma de source sûre laa la koy wax hmm. mu jeeg saayaat normal parce que dafa dem ba événement yi ala kulli al dafay am moment boo xam ne da koy dépassé mais maanaam dugg na ci lobbying boo xam ne dina difficile loolu mu Adji Sarr génn ci ak yu ak teyu ak teyu ba bakkan looy njort ci hommage à la femme africaine hommage à la femme sénégalaise mais tey comportement Adji Sarr déshonoré na rataaru la femme sénégalaise bi nga xam boo bëggee jabar da ñëw Sénégal booy way jigéen da ñëw Sénégal boo bëggee mën a togg mën a sëy mën a muñal jëkkër da ngay ñëw Sénégal may jaajëfal association des femmes juristes juge yu jigéen ñi ne ci tribunal yi ci hôpital yi aj sarde de waroon nga mën a mel ni xale yu jigéen yooyu tey xale yu jigéen yu bari yàq nañu dund góor ci ay fen ak ay sos benn xale naroon na takk jabar sama koñ hmm. bi mu demee ba xale bu góor bi dem ba am lu mu gis si ndaw si takk ko ndaw si da ko piégé bu mu ñëw mu yóbbu ko benn auberge woo ay policiers ñu ñëw fekk foofu ñu ngi bi mi ngi tudd Dembaloo mi ngi ci kaso bi di ko tëdd donc man wër naa fanweeri kaso ak juróom-ñaari gis naa kaawu viol bu nekk laajte naa ay universitaire mais viol bu mel ni Ousmane bu Ousmane Sonko bi. man depuis dix ans dugg ci tribunal di fekk ay procès man mësuma gis viol ba man jaaxal na ma ba chambre criminelle bu ñu fa yóbboo Ousmane man daal sama problème mooy. loolu gàcce la si justice. ndax la. ndax lu dool ni chambre criminelle dayo bi mu am xam chambre criminelle mooy chambre criminelle benn ëttu attekaay la boo xam ne dafay atte lépp luy jëf yi gën a ñaaw ci société rey nit ëmbal rey nit rey doom jaay drogue jaay yamba viol sàcc ay jur euh, association malfaiteur ñooñu nga xam ne bu ñu leen di atte bu ñu leen indi indilee këyit papier détenu yëpp dañ leen di indil notification ñu ne weer bi fukki détenu la ñuy àtte ñooñu bu ñu leen ko indilee prison Rebeuss man def naa ko deux ans kenn du si nelaw. ndax ndax xalaat ni ñi ñi may bokkal ñu. ñu gën a yéem day waar dañ naan jot naa këyitu dëmm. donc jot naa wuy sama ndey ay waay naa jot naa këyitu dëmm parce que yow boo toogee kaso da nga naan mun nañ la jox parquet correctionnel ñu yóbbu la àtte foofu foofu sedd na wala ñu jox la flagrant délit mais yow doo xalaat ne dañ lay yóbbu léegi buñ la yóbbu chambre que nga woo sa mbokk sa yaay rek wax leen lan mooy chambre commencé nañ daw si sëriñ ya fay atte ngan di attekat nga xam ne avocat yi nguur day gé chambre criminelle yi nga yaakaar lu tax muy yéex a am ni hmm. sur l'étendue du territoire parce que budget bi koy doxal dafa dafa diis si état na ko nit xam chambre criminelle état day génne xaalis pour yi défendre détenu yi dinañ la fay lu mu néew néew cinq cent ngeen xool noo leen koy organiser juge yi seen pér ak yooyu nan ngeen di tenir audience foofu nga xam ne ay effort yu rëy dañu xalaat dindi cour d'assises ba indi chambre criminelle ñu ne réewu Sénégal cour bi nga xam ne ñi ngi fay àttee jëf yi gën a ñaaw nga xam ni kenn jàpp nañ ni kenn du fa àtte caaxaan kenn du fa relaxé sax nit dañ lay acquitté wala ñu condamné la ngan di juge toog nga xam ne audience yi man damay ne sa chambre criminelle xam nga audience yi ban heure lay jël trois heures quatre heures du matin juge dañuy àtte pause dem lekk julli ñëwaat da mel ni yawmal xiyaam nga nekk barke alxuraanul karim si laaj tontu avocat yi léeg-léeg ñu tëj nit ñaar fukki at. ba yi soppeeku ñu l'accusé. waaw jabaram jabaram daanu xëm doomam daanu xëm ay mbokkam garde yi takkal ko mënut yóbbu oto bi naan piip jooy boobu dafa triste piip nga ne foofu da yóbbu benn leader d'opposition pour éliminer ko politiquement si ëttu attekaay boobu nga xam ne du juridiction bu ndaw nga yóbbu ko fa pour viol. àdduna la communauté internationale. Afrique Sénégal ñëpp xippi seen bët di xool Sénégal ñu ne lan lañ fay àtte dossier viol boo xam ne dossier vide la maanaam amul benn preuve du début ba fin boo xam ne ki ñu tuumal mën nañ ko génne sukkandiku ci tëj ko bu dee article trois cent trois cent vela laa wax de ni mu définir viol ni mu ko définir buñ si sukkandikoo ne dañuy de man loolu dina ma jaaxal bu dee menace de mort. te docteur bi menace de mort boobu docteur bi dindi na ko ci certificat bi par docteur bi nee na man ki ma gis docteur dinañ ko laaj. ki ma gis nuruwuma ko nuruwuma ko ku nekkoon en danger. kon wane na ne ñu ngi doyadil magistrature ñu ngi xotti orma magistrat yi ñu ngi suufal. léegi Ousmane Sonko bu demee nu ko ci fekk. chambre criminelle dañuy soppi tur bi boobaa ñu tuddee ko flagrant délit parce que foofu kenn du fa àtte ay caaxaan sëñ foofu. Hmm. dama wax sax ma ne Adji Sarr yéene ko dara lu bon. mais boobaa mun nañ ko fa teg daan yoo xam ne juge bi bu paree mën na communiquer loolu la presse pour que presse bi yëpp bind ne diw mi fenkat la juge bi mën na def loolu. mën na def loolu maanaam moom la ñuy wax déclaration calomnieuse loo xam ne da nga fen fen yoo xam ne réew mën na si tàkk ay saar boobaa ku kay seet si kaso bi ku koy jàppale ay saar tey buñ ko passé loon mu dem Amérique dina sonn bu demoon France dina sonn Adji Sarr kan moo koy takk ci réew mi fan lay sëy ëllëgëm fan lay màggete ay sëtam ay doomam parce que man ku ma tegal kaamilu arxuraan naa kaamil kaamil ma jàpp ba set waat ko jàkkaarloo ak sama borom te xam ne sama li ma gëm sama enquête may ma ko hmm. samay gëstu may ma ko barke arxuraanul karim viol amul foofu noonu maanaam jaay doole ak acharnement moo am foofu pour des raisons purement politiques nañu bëgg réew mi. léegi bu Sonko demul lu ko ci mën a fekk nañu nañu ngir réew mi. nañu liggéey ngir réew mi réew mi dafa souffrir 1960 ba léegi. Afrique souffrir tubaab yi ñëw jàpp suñuy maam njàmm. di leen yóbbu gore di leen jaay comme ay booboo. Hmm. piller suñu alal ñaata ressource naturelle moo am dans ce pays. Hmm. président Macky Sall kenn du ne amul xam-xam. Hmm. kenn du ne liggéeyul réew mi. dëgg rek la yàlla bëgg kenn du wax lool ko xam nañ rek mooy wax lool. Hmm. defar na ay tali defar na plan plan Sénégal émergent projet bu baax la. Hmm. tabax na gouvernement liggéey na respecté nañu ko na génne par la grande porte bu ko bu ko politique jaral mukk muy massacrer adversaire am directeur suba histoire toppe ko suba ñu koy jàngale ci école yi di ko tudd ñu naan réewu Sénégal. si jurisprudence am na benn opposant bu benn xale tuumaloon viol dañ ko mujjee yóbbu ci kaso bi ay nit dañ ci dee ñu koy jàng histoire day jàngale. histoire daf koy bind. Macky Sall bu mu dugg ci histoire Macky Sall na am woy boo. xam ne da nga jàpp ni Sonko gune yi duñ dellu ginnaaw mukk ci liñ jàpp ni. man de dëgg la si ñoom. non duñu xala xel xalaatu. ñaari force la sëñ bi benn bi mooy Macky dafa yor armée yor gendarmerie yor force kii force bi mu yor mooy ay boy tuxkatu tuxkatu yàmbaay booy geesmaan yi dawalkatu jakartaay disket yu ndaw yi nga xam ne seen yaay ak seen papa mënuluñ leen dara booy yi boo leen xoolee ni ñuy dawale jakartaa ci dëkk bi nga xam ne booy ragal conscient ñu si dund bi mu neexee am jabar am ay doom ñooñu dëkk bu ne jeunesse boobu la bëgg am te ñooñu ñoo ëpp ci réew balaa nga xam Wally Seck nga tëgg tey Dakar Pape Diouf tëgg Ndar di Diop tëgg Kaolack beneen waykat tëgg Tamba nga nga nga def sondage ñoom ñoo fay dem nga xayma leen ni ñu tollu ci dëkk bi maanaam ñi nga xam te ne ci désespoir. lañu ñooñu ñooñu laa yërëm ci mbir mi dafa am benn boy ndeysaan bi yaayam dafa gaañu quoi mais boy bi gëm na Ousmane Sonko ba boy yaakaar na ne maanaam addunaam alaaxiram àjjanaam lépp ci loxo Ousmane Sonko la ba néegam photo Ousmane maanaam boo ko jàngatee sociologiquement dëgg la am na fi doole. sëriñ am na fi doole mais toll nañ situation boo xam ne lu ay situation bu sëriñ naan nit ki bàyyi mu bàyyi. Hmm. est-ce que nga li ma la. ci li nga gis. xam nga sëriñ yàgg na joxe ndigal nit ñi exécuté wuñu ko. Hmm. sëriñ nee na leen fi ab Abdou Diouf nit ñi wotal nañu. àdduna dafa soppi xaru kanam maanaam sëriñ bi mën nañ la gëm ci côté yàlla yonante bi topp la foofu mais foofu la ñuy foofu la nit ñi di yem ak yow. jamono dafa soppeeku xale yi dañu am fit xale yi bëgg àdduna xale man dama dem ban ambassade laa demoon booru Seneweb j'ai vu des milliers de jeunes ci mbedd bi ñëpp yor ay këyit ma ne mais xanaa dëkk bi kenn bëggu fi toog ambassade boo dem jeunes yi ñu ngi leen di arnak ay millions mil ni kenn bëggul toog ci réew mi nga juddoo sa réew màggi sa réew amoo fi jàmm ñu xañ la fi say ax ax say yelleef nga yeew di gis sa ndey ak sa baay yor jabar yor ay doom kilo ceeb ni mu chéré dëwlin ni mu chéré paas dem Dakar ak Tëngéej ni mu chéré amoo salaire bu beex location les sentiments de frustration da nga koy gis ci nit ñi les inégalités se creusent dans tous les dëkk bi nit ñi dañu mer mer bu metti man damay def évaluation ma ne président Macky lan moo tax li mu def ci réew mi il a fait beaucoup lan moo tax loolu deful impact ci sénégalais ba léegi sénégalais yi mënuñu reconnaissance ci loolu mënuñu ko sentir parce que da ngay am impression ni dara changé wul ay booy jënd ceeb bi fi Macky Sall nekkee ak léegi est-ce que ceeb bi kilo ceeb bi wàññeeku na. ba yow nga dugg si boutique ñu jaay la kilo ceeb cent franc nga ne tey lan moo xew amul yéegagoo oto paas bi wàññeeku ba apprenti bi ne la Dakar Tëngéej cent franc la nga ne waa lan moo xew mboq ñor nga yëy mboq ba ginaar yi di lekk nga ne tey lan moo xew xaal ñor nga jënd xaal cent franc lekk ba may say xar nga ne lan moo xew nga dem hôpital di faju nga ñëw ñu ne la junni perfusionné lañ si defal nañ la si consultation am na ci garab nga ne lan loolu mooy vraie question yi lan moo tax mbir bi mu def impact man je me dis que nekk ci pouvoir bi fi ñuy xalaate askan bi daf leen raw et que Sénégal. Hmm. xaw ma Macky Sall xaw ma Ousmane Sonko. Hmm. yàlla rek moom mais Sénégal si loxo yi muy tàbbi. 2024. président boobu coow dina ko.